ci exposant yi lée Ndeye Maguette di wone dàll ak itam ay saak yu yanj yi nga xamante ne defar na ko te lépp cuir kese la di wone xarañteem muy ay article yu am qualité wante itam bokk ci suñu patrimoine produit yi ñuy exposé fii ñu ngi defaree en cuir lépp 100 nekk dàllu góor dàllu jigéen que ce soit fermé ou ouvert sac yi yëpp tout cuir donc c' est de trente cuir bi nag euh, mi ngi jógee entre Maroc wala Italie wala Turquie parce que actuellement Sénégal amaguñu cuir bu ñu moomal suñu bopp mbégte la ñuy def parce que suñ la tànnee sa à ñu ngi xam nañ sa liggéey li ngay def donc mbégte nga siy am. keneen ku wone la muy jaay di Ndeye Maguette Sylla ci li mu gën a yëngu bokk na ci ay yére yu ñu nas ay per doon liggéey bu am solo wante it doon modèle bu mu xalaatal boppam. koy euh, euh, importé mais ñun ñooy ñooy façonné suñuy modèle comme bii ma tey nii ak li ma sol nii ñun ñoo koy def. Fatou Bintou Athie moom aar bi mu yëngu daf ko jagleel jigéen ñi faral di muuru ay yëre yu yiw teg ci itam yanji lool méngoo ak na muy solo. may gën a privilégié les voilées mais ñëpp laay defaral donc euh, comme man personnellement je suis donc maa ngi liggéey ci suñu produit consommons <laughs> local. jël suñu cuub yi nga xamante ni ñu ngi koy jëlee fii peut-être ci Afrique bi jëm ko valoriser au lieu ñuy jël toujours euh, par exemple les dentelles mooy brodé yi di ko importer di indi fii man je préfère toujours liggéey si li nga xamante ni moom mooy pour suñu dëkk. lu am solo ci bile ndajeb exposition muy teewaayu njiitum réewum Sénégal Macky Sall ànd ak naataangoom bi nekkee ca Pologne ñëwoon ngir nemmeeku yile produit lépp rek ngir jëmmal artisanal fii ci Sénégal lépp rek ngir jëmmal artisanat bu Sénégal wante itam yokk jom ñi nga xamante ni ñoo ciy yëngu